Nous bëgg fait un lancement remise des titres de propriété mënuñu koo def tey rek mais euh, dañuy un lancement bi parce que nous avons ñu bëre pouvons euh, ñëw mais même après nous nañu continuer à récupérer ci bureau bi titre de propriété li ñuy def tey fii ñu def Mbour aussi ndax cinq titres de propriétaire juróom téeméer titre Mbour Tivaouane Ziguinchor fii Ziguinchor 101. un la bénéficiaires

Kër groupe groupe. comme ni ñu ko on dit promouvoir la prospérité la bonne santé et le succès familial euh, Kër du groupe. dafa am ay patch. cité tey Imo moo oote li comprendre mooy ci àdduna lu wóor day metti lol day jafe té day yéx day metti day jafe day keur tambi du imo ki lu wor lay liggé ndax suñu parcelles yi dañ ki liggé ak képp ki nga xamné ne war na ki Dugu ki les mairies principalement mais sous-préfecture préfet cadastre urbanisme ñëpp dañ leen koy yëgal dañ koy xam kait bi bu day un titre de propriété bi nga bu sûr Euh, day yéex c'est vrai mais relation de confiance mu ngi fi ndax du ñu euh, ay nit yu nga xam ne da ngay wër dëkk bi pour nga gis ñu am na fu ñu sànc da ngay ñëw foofu nga fekk fa ay nit waxtaan ak ñoom mën nga mer nag mën nga mer parce que yàgg na mais explication lañ la mën jox comme nima ma ko waxee lu wóor day yéex lu day yéex parce que ça ne dépend plus de nous dossier bi nga jël déposé ko ki bureau mu wara a fi dem fenen amna limite bi nga xamné ne am do ñëw fekk nit ki ki bureau nga ne ko def ko légui tout de suite nga jox mako ma yobbu ko fenen yow ilifloo ko il faut nga bay ko mu def liggéeyam ma leen di remercier nag parce que euh, muñu ngeen torop vraiment toog tranquillement kenn ñëwul créer xuloo xeex ki loolu ñi fi ñëw yëpp dañuy ñëw bëgg am renseignement buñ ko amee aussi dañuy dem tranquillement sans difficulté majeure. ah lii kay mbégte la woon parce que loo xamante ne ñu ngi ko doon xaar bu yàgg ndax comme man ba ma jëndee terrain bi depuis 2018 la. kayit yi ñuy soog a génn te loolu vraiment satisfaction la kontaan nañ ci lool ndax xam nañu ni léegi boobu am terrain dafa jafe surtout am ko ci ay voie yu légal ak yooyu loolu dafa jafe torop ah waaye ñu ngi sant yàlla comme euh, yàlla dogal na ba lii am ñu ngi félicité vraiment kër Tambédou parce que gis nañu ni mu ngi jàppale nit ñi ndax man euh, indi naa fi ñu bëri ñoo xamante ne jënd nañ fi terrain man sam bopp jënd naa terrain fii Kantel ak Brofaay même Mbour man jënd naa fa samay rakk yi nekk Europe yëpp indi naa leen ñu jënd ak ñoom yëpp seen xarit ndax loolu yëpp am yaakaar ak gis euh, vraiment affaire bi nu mu légalee loolu moo tax ñu dugg si te vraiment kontaan nañ ci torop torop ñu ñaan yàlla nag affaire bi gën a law ñu jàppale waa Ziguinchor surtout waa Ziguinchor ndax mënoo dëkk si Ziguinchor nekk fi ba nekk mag te doo fi am terrain nga dëkk di loué rek ndax dëkk sa dëkk sa kër bàyyi toujours ba nga ba nga nekk mag tamit nekk fa ak sa njaboot tamit neexul ñaan nga yàlla nga dem am kër yooyu itam nga nekk fa ak sa njaboot comme sa waajur yi ni ñu amee te loolu yëpp ñu ngi siy sant kër Tambédou te koy gën a ñaax tamit mu oyofal yëf ba ñëpp mun a am tamit terrain parce que lii moom dafay wone ni yëf yi dëgg la waaw xam nga ñëw nañu ñu jënd ak yooyu jox ñu ay plan man dem naa xool sama terrain bi fan la ak yooyu yëpp dem naa boo visiter site bi waaye lii muy ngi firndeel ni yëf dëggantaan la yëf yi leer na te vraiment jaar na yoon ñu koy sant di ko gërëm dëgg eh, yàlla def na ku baax la ku yaatu la ku yaatu gis-gis la tam eh, ndimbal yàlla nag nit nag buñ la tuddee Cheikh na Ahmed Tidiane yàlla day dafay def si yow mbët yàlla def na ci moom ah wërsëgal ko ba yàlla def ko kilifa ci biir eh, lu ko yàlla def kilifa xelam yaatu ubbute ci waa Casamance ah def na fi eh, interna internat xale yi di fa jàng ah de def na fi tam ah lu mel ni lotissement bu ñuy def ni le yàlla dimbale ko mu am terrain gu yaatu mu lotise ko di ko jaay nit yi si prix bu yomb loolu nag waa doomi Casamance bu doon ñu bëre noonu lañ doon def suñu doomi Casamance yi ñu bëri dinañu am dëkkuwaay dañu am fu ñu jaamoo yàlla te loolu nag ngëneel gu rëy la mbaax la dara def ko lu dul gis-gis gu yaatu ak mbaax ñu ngi ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may gudd te yemul nag Casamance kese yemul tam di jox terrain kese boole na ko ak tabax xam ni kooku alhamdulilah rabbil am jar naa ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd ak wér gu yaram. ñun de li ñu gëmoon depuis 2010 moo doon ñu dugg en phase. ak li xew tey li xew mooy les zones on devrait les urbaniser war nañu nangu le lotissement war nañu dëkkaloo ay doomu Casamance parce que zone bi après le conflit dañu gisoon que ay nit ñoo jóge fële ñëw dugg ci àll bi ak moo àll bi di gor di di def lu leen neex si la ñu manquoo tous les villages là ñu ni ah lii de moom defe naa bu ñu nangoo le lotissement danañu am li ar aar danañu dëkkloo ay Casamance dans des dans la légalité alors si loolu pour bañati kàddu gi rek ñun ñoo laaj le lotissement muy Brofay Joola tey muy Brofay Baynung muy Mandina Mankagne ñu def ko avec Kër euh, Tambédou wala ñu def ko ak ñi nekk à Brofay Joola dëkkloo fa ay nit ñun ñoo ko laaj du donc euh, bu ñu ko yàlla mayee ba fi mu nek ni yéen ngeen jot sen euh, sen numéro loo kontaan may sante suñu borom sante suñu wajur xex bi metti woon na lol lol lool pour que ñeneen ñi xam que pour mieux garantir la terre il faut faire l'urbanisme il faut aller avec le temps il faut que ñu xottal ñu yoon yi moy suñu sécurité